Euh, quatrième point bu am solo aussi mooy gis nañ ne xale yu bëri tey jii ñu ngi liggéey ci TikTok ñu ngi ci am ñu ngi ciy def ay bés bu nekk ay contenu te gis nañ ne gën a bëri si ñoom quasiment duñ kenn lañ ci fay dara te gis nañu ne yeneen dëkk yi am nekk si TikTok bi ay ñuy way influenceur wala créateur de contenu dañ ci am xaalis bu baree baree bare te jeunes sénégalais tey ji ñu bëri dañ dañ ciy def ay am ay vues yu yu bëri ay millions de personnes yi di leen di leen suivre te pourtant. duñ ci am benn benn retour loolu nag aussi état aussi rôle am aussi mooy fexe ba plateforme yi gëstu ndaw yi nga xamante ne ñoom peut-être mun naa ne mun nañ dund sax ci plateforme bi donc ñoom aussi foo ñu bàyyi leen xel bu baax mooy c'est un point aussi de de point de discussion la bi ma bi ma am ak ñoom